alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi nañu dellu sant borom bi subhaanahu wa taala jaamu yàlla wallaay sant yàlla li tax ma def message bi mooy tey alhamdulillah euh, tey la alxamis euh, ñu ngi ci mujj mooy ci ci ci ci guddi yu mujj ci weeru koor waaye léegi laa dégg benn message sama yaram daw ma ne faw ma partagé ko ak yéen ñu war ci xalaat waaye jële ci jàng benn soxna moom ma andil message ne ma imaam ndeysaan allahu akbar dégg na mooy lu ñu wax ci mooy ci laylatul qadr ci guddi yi ndeysaan nee na imaam mais dama feebar wallahi soxna soosu allahu akbar wallahi xam naa ko wallahi xam naa ko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla taxaw subhanallah dafa feebar nee na imaam gis nga de dama feebar dafa tëdd soxna si mënul def dara jàpp mënul jàpp dañ koy defaral tiim même tiim mënu ko def tiim nga xam ne da ngay laal xeer bi ne ni sa kanam mënu ko defaral boppam dafa tëdd allongé mu ne imaam mais dama bëgg a julli est ce que nan laay def mënu ma def dara est ce que mën naa jullee nii allahu akbar sama yaram daw wallahi dama jooy ba ma déggee message bi yow mi yàlla may wér nga sàggane fàtte yàlla yow mi yàlla may lum la may ak a bari ngay jooy di jooy di sàggane julli waxtu tëdd ci guddi yi subhanallah laylatul qadr xoolal soxna soosu tëdd mënul dara muy xalaat nan lay def ba jege borom bi subhanahu wa taala xoolal soxna soosu amul wér waaye nag xol bi wér na ndax xol bi mu ngi des mu ngi xalaat borom bi subhanahu wa taala mu ngi connecté woog ak lan mooy alquranul karim xolam mu ngi connecté woog lan moom mooy que ni fàttaliku ni war na dajeek borom bi subhaanahu wa taala allahu akbar yal na yàlla may soxna si wér yal na ko yàlla may wér allahuma ashfiha ya rab allahuma ashfiha ya rab yal na yàlla may tan soxna si yal na ko yàlla may tan yal na ko yàlla génnee macha allah ci nattu bi mu nekk lu koy yëkkatil daraja ca moom dugal ko aljanna ndax yërmande may ko wér may ko gudd fan barkeel ko barkeel njabootam yow sama mbokk bu góor wala bu jigéen yaa ngi jooy naan amuloo lii amuloo yaa ngi jóg mën nga dox mën nga dem fu ne waaye santal yàlla wér bi la yàlla may sant ko ci yàlla temps bi la yàlla may sant ko ci yàlla nga jaamu ko yàlla alal ji la yàlla may génnee ci azaka génnee ci sarax nga jaamu ci yàlla dund bi la yàlla may jaamu ci yàlla avant dee di ñëw allahu akbar looy wax sa borom lan la ñu mën a lay yowmal xiyaama am nga wér xoolal ñi amul wér ñoom ba léegi ñu ngi macha allah soxna soos mu ngi sant yàlla saa su ne saa yu ma ko déggee subhanallah day mel ni man mii maa feebar subhanallah mbokk yi naam ñun ñoo feebar ndax ñun suñu xol yi illa man rahimallah fàtte nañ yàlla te yàlla ne woon nañu wala takunu kalladina nasullah ngalla waaye bu leen mel ni ñooñu fàtte borom subhana taala fa ansaahum anfusahum ulaika humul fasiqun ñaari kër moo am mooy waa aljanna yàlla nañ ci yàlla boole wala waa safar yàlla nañ ci yàlla musal allahuma inna naudu bika min annaari wa min xaali ahli nnaar yàlla mu ne laa yastawi ashaabu nnaari wa ashaabu aljanna ashaabu aljannati humul faizun waa aljanna ak waa safar duñ mas a yem waa aljanna ñoom ñooy ñi gañe yàlla yàlla boole ci ñooñu kon yow sama mbokk bu góor la bu jigéen dellul nga sant yàlla góorgóorlul jogaatal jëlaatal décision nga tuub dellu ci yàlla subhanallah xoolal soxna si tëdd mënul def dara waaye xol bi mu ngi des mu ngi bëgg yàlla allahu akbar xol baa ngi bëgg alquran allahu akbar xol baa ngi bëgg sunna xol baa ngi bëgg julli xol baa ngi bëgg xiyaamul layl yow tey mën nga ko nga sàggane ko laa ilaha illallah yàlla na yàlla may wér soxna soos yal na yàlla may wér ñi ñi feebar ñëpp yal na yàlla may leen tan ñi gaañu yal na yàlla jéggal leen ñun it yal na yàlla may ñu dund bu dund bu teey may ñu mujj bu rafet yal na yàlla sàmm soxna si ñun ñëpp yàlla may ñu mujj bu rafet leerug bàmmeel yàlla dugal ñu aljanna firdaws mbokk yi lu ñu war a sante yàlla bari na waaye subhanallah bu ñu santul yàlla tey kañ lañ koy sant bu ñu dellul yàlla ci yàlla tey kañ la dellu àdduna bi dafa gàtt bum ñu nax alal ji ñu yor dafa gàtt bum ñu nax wér bi nga yor dafa gàtt bum ñu nax temps libre bi nga war dafa gàtt bum ñu nax dund bi ci boppam dafa gàtt kon boog nañu dellu gaaw ci yàlla avant ñu koy rëccu avant ñuy avant muy trop avant ñuy dellu ci borom sant la fekk ni yàlla mere nañu yàlla bu ñu yàlla mere yàlla na yàlla kontaan ci ñun yàlla na yàlla dugal aljanna ñaanal leen soxna si yéen ñëpp fu ngeen mënta nekk ñaanal leen soxna si yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla may wér may kottan tan yàlla na ko yàlla taxaw zahiran na baatinan yàlla na yàlla taxaw ñi feebar ñëpp ak julli ñi fuñ manta nekk wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu